musique ñu dellu siwaat ci suñu plateau euh, ci li nga xamante ne nag moom mooy euh, dernier virage bi daal di bàyyi kàddu gi ñi nga xam ne ñoom la ñu dalal ci plateau bi ñu daal di nuyoo laata ñu people corombaar Ndiaye ci bis bi euh, nuyoo bi ñu tàmbali kook suñu gan si décembre comme ni ma leen ko waxee di ganub di jemaxu ci rubrique musique si di ñu ngi leen nuyu waaw leen di di di nuyu ni seetaan yëpp di kontaan ci invitation bi mhm. télé yow bi maa mettiwul woon Euh, waaw non xam nga rek ñun moom comme daanaka guddi gi la ñuy yëngoo. xawoon na méttees tuut. mais nag bon waaw. lu ko jar jar. lii de pour wax alo allo la rek. allo ah, allo tam ba nii <laughs> mooy dégguma ko non dégguma la ak yooyu moom fii dafay jeex daanaka. Ah, voilà nga ne écouteur la nii ah, écouteur waaw. yëkkatil bu mat écouteur Cheikh jëlal ma écouteur Sidi. Cheikh jëlal fii. jëlal lii. ah gis nga sa écouteur ah, waaw gis nga dëgg la. waaw ah. lii de euh, ñëwaat. ci ci kanam. Euh, bàyyi docteur Dieg Diarra mu daal di nuyoo ñi ñu seetaan wala nuyoowaat. nuyoo woon naa. di mhm. ma koy euh, naan asalaamaaleykum waa Sénégal asalaamaaleykum téléspectateurs yi maa ngi nuyu képp kuy seetaan seen télévision Walfadjri mhm. di am mbégte ak kontante di jàkkaarloo waat ak yéen d'accord ah. euh, waaleykum salaam na nga def mbaa yaa nga ca <laughs> maa nga ci comme d'habitude ah. jaajëfal Thioro Rama Sidi sama invité ak ñi nga xam ñu ngi seetaan actuellement ni Walfadjri petit déj mhm. euh, ci yow la ñuy daal di ak desandi ndax sa rubrique la ñuy euh, ñëw léegi léegi euh, muy rubrique people tey ñu def lu am solo te yaakaar naa ni comme ni ma ko waxee mercredi bu jot nga indi dossier tey ñuy waxtaanee wàllub vidéo girl effectivement euh, Zeyna parce que doon na loo xamante ni ci réew mi bari na ñu jàpp ni caaxaan la Euh, parce que euh, looy liggéey vie euh, quelquefois sax nit ñi dañuy am problème mu réellement am explication yi xam lan mooy vidéo girl mhm. donc ba tax ñu bëggoon taxaw un peu ci seen liggéey gëstu ci ak euh, gëstu itamit ci njëkk yi nga xamante ne moom lañ leen di fay naka noonu gëstu aussi ci ñoom niveau de vie bi nga xamante ne élevé na ñoom ñu am ko te ñu bari jàpp ne xëj na liggéey bi mayewu ko ñenn ñi dem ba jàppee métier bi ñu baal ñu mais prostitution déguisée mhm. euh, euh, lan moo nekk ci ginnaaw liggéey boobu boobule ndax réellement vidéo girl boobu noonu ñuy wax gëdd bi fii ci réew mi xam nañ ko parce que nag ak lu ci liggéey la boo xamante ni ci jamono yi la ko mm, ku nekk bëgg a taamu def ko liggéey donc est-ce que réellement liggéey la dinañ ci ñëw euh, ñu xam la ni nag dossier bi <laughs> jafe woon na parce que ñoom ñi ciy yëngu ñëpp kenn du moins je dirais pas kenn mais ñi ci jot ñëpp amuñu woon yéene àddu ci parce que xëj na ñenn ñi biñ ko ñi ngi koy def mais amuñu seen avalu parents yi. Mhm. ñenn ñi dañ la naan passe-temps rek la dama koy def nii donc bugguma ci fës wala bugguma ci wax. affaire yu mel noonu euh, ba tax n'empêche def nañ ci euh, benn gëstu itamit waxtaan ci ak koo xamante ni producteur le réalisateur ba bu Iris audiovisuel mais balaa ñuy ñëw un ci extrait bi ñu am ak Gabi dañuy dem euh, seetaan benn élément benn benn benn gëstu bu ñu def ci dossier bi dellu siwaat dañuy faral di taaru lool te nag dara rek ëppul ngir ñu mën a fesal googule taar nekk ci ñoom ñoom nag feeñ gi ñuy feeñ ci tele bi bari lool ba tax sax dañuy daal di am lu ci njuróog succès ñoom ñooñu lee ay vidéo girl lañ leen di woowee lan mooy seen liggéey bokk na ci taaral li nga xamante ne moom moo di vidéo clip yi wala ay publicité ak yu ni mel waaye néew boobule métier nit ñi farataaluñu ko lool parce que nag dinañ leen duut baaraamu tuuma bu nekk ñoom jigéen ñi nga xamante ni ñoom ñooy liggéey li nga xamante ni moom moo di vidéo girl ñenn ñi sax dem bay xam le ni ñoom ñi dañuy jaay seen bopp lan moo waral googule xalaat gu ñaaw jëmale ci yile ndaw ñu bëri jàpp ne ñoom seen col dafay faral di ñaaw sexy moo xam day gàtt mbaamu yaraax ba tax sax seen yaram ak seeni forme lépp dafay daal di nekk ci biti waaye xamante ne noonu la ñuy dundee appartement yu rafet cheveux naturels yu gudd te rafet dàll yu rafet sañsa yu rafet wala sax ay oto yu rafet seen boobule métier amul payoor gu takku fii ci suñu réew yenn ci ay xibaar sax di xam ne ni am na ci ñoo xamante ne génn ci clip yooyu aajuwul dara ñu leen di fay ñoom pare nañu ngir rek joxe seen taar googule gratuitement maanaam ñu bañ cee jële benn dërëm li leen ñor rek bokk na ci daal di fës wane seen bopp ngir mën cee jële benn tur bi waaye nag seen liggéey gi nga xamante ne ñi ngi koy méngatle ak li nga xamante ne moom moo di liggéey yu jaay sa bopp bokk na ci lu nakari torop vidéo gër li yile ñu bëri xam le ni ay mbaraankat lañu maanaam di dajale ay far saa su ne rek dinañ fexe naka la ñuy mën a indee ay lay ci noonu la ñuy dundee ñoom ñi yenn saa dañuy daal di collaborer maanaam di liggéey ak ay agence de mannequinat ngir ñu mën leen a utal ay contrat fii ci Sénégal wala ci biti réew ñoom naka la ñuy def ba mën a am lux boobu lee nga xamante ne moom la ñuy dundee ñenn ñi jàpp ne dañuy dem ci yenn bërëb yi ngir di fa mën a gisee ak ay nit ñoo xamante ne ñu siiw lañu moo xam plage wala bar wala ay lobby yoo xamante ne dinañ ko tëral ci ay hôtel ngir rek mën faa dajeek ay nit ñoo xamante ni ay boroomi kopp koppar lañu wala ay boromi tur ñu leen di wax itamit ay boromi daraja ngir rek ñu daal di leen mën a yor ci benn moment ay laaj tamit daal di samp ci lan yile di def li nga xamante ne moom la ñenn ñi di tuddee prostitution dégisé bokk na ci bu weer deewee ñu daal di mën a am lu ñu def ci seeni poos boole ci nag ak baña sonn waaye tamit bokk na ci am ay appartement yoo xamante ni bëgg nañu yooyule góor di ko fay am nag ñoo xamante ni ñoom am nañu ambition itamit liggéey bi defuñu ko lu dul ngir daan seen doole bu ñu ci jógee dañuy daal di dem nekk ci leneen ngir mën a am lu ñu yore seen bopp waaye nag terewul rek mu am ñeneen ñoo xamante ni ñoom li ñu bëgg rek mooy góor ñi daal di leen yor seenu giirug dundu ñenn ñi njortu ne buñ ci duggee dinañ ci gis borom koppar boo xamante ni bëgg na leen ba mën leen a takk tam donte sax ñu bari ci ñoom bu ñu sëyee tey dañuy gaaw a tas am na ci nag ñoo xamante ne ñoom li ñu bëgg seen diirug dund mooy génn ak ma sàmba génn ak ma demba xaritoo ak paate bu subaa usmaan ku ci nekk rek ak ni nga xamante ni noonu nga taamoo doxali sa liggéey waaye ak lu ci mën a am rek liggéey boo gis liggéey la ba ci sax liggéeyu video gër yi nga xamante ni moom la ñuy waxtaane tey voilà muy élément bi nga xamante ne euh, daal di nga koy euh, def ci ñi nga xamante ne ñoom ñooy euh, vidéo girl yi ñu mel ni kon ñu ci bëri buñ ciy dugg ku nekk ak li tax ngay ngay ngay def liggéey boobu boobule. effectivement Zeyna niñ ko waxee yoo xam ni elles sont très jolies bu ñuy ñëw ci clip yi dañuy sañse ba jekk dañ leen di soit ci vidéo clip yi wala ci publicité yi mhm. am na ci ñoo xamante ne wax dëgg yàlla gagne-pain lañ ko def Euh, euh, ku leen di woo ci euh, vidéo dañ leen di fay donte nag payoor bi tolluwul noonu parce que ku ne xam nga ni bu dee ci ay jamono mi ngi doon jaay nekkatul ci jamono yi parce que moom ak publicité ñoo yem autant ku ci mas a génn da am xaalis bu ñu jëlee sa photo itamit affiché ko ci mbedd yi c'était vraiment de l'argent mais tel n'est plus le léegi li ko waral bokk na ci ni nga xamante ne ñëpp qu'on le dise ou pas c'est la réalité euh, cest à dañu dem ba télé nekk benn effet de mode en quelque sorte ku nekk jàpp nga ni boo rafetee rek euh, am mel nenn ni mën a sañsee Euh, boo ci boolee xees nag moom day daal di gën a doy waar bu boobaa jàpp nañ ni la télé est faite pour toi euh, peut-être que mën na bañ a nekk lu cas euh, ça dépend boo nekkulee soo mu amulee vocation ci nekk animatrice wala dara dañu lay préférer ci yenn vidéo clip yi ak yu mel noonu ba tax yenn saay bokk na nag ci liita clip cher léegi fii ci Sénégal parce que producteur yi te disent ki nga xamante ne moom mooy war a ñëw figurer si ci clip bi fay affaire yooyu noonu bu ñu ñëwee jour yi nga leen di soxla yëpp ku ci ñëw da nga koy war a jox paas euh, lii ki nga xamante ne moom mooy def euh, euh, premier rôle bi c'est-à-dire ki nga xam ne moom ma nekk vedette bi am du yem ak ñi nga xamante ne ay figurant lañ leen di doyee payoor yi du nekk benn peut-être que kële bosam moom mooy gën a kii parce que moom mooy gën a cher parce que moom mooy gën a fës mais ak lu ci mën a am taxul payoor gi demee noonu te ñoom boo ci gisee ñu bari seen niveau de vie dafa élevé xam nga Sénégal déjà génn fi télé dafa metti parce que boo xasee benn benn génn télé benn ñaari yoon nit yi dañ lay xoolee pour koo xamante ni yow jeexaloo dara du coup tu n'as la tête sur les épaules tu as envie de vivre euh, li nga xamante ne yow amoo ko sa poche tolluwu foofu dootoo mën a jël transport en commun ndax notoriété bi nga am dootoo mën a dem n'importe où ndax notoriété bi nga am waroo sol n'importe quoi ndax notoriété bi nga am du coup tu es obligé de euh, voilà te casser la tête pour mën a sañse out euh, am na ci ñoo xamante ne ku ci génn ñetti clip ñeent qu'on le dise ou pas moo am tu préfères kité Euh, sa domicile bi nga xamante ne c'est là-bas que tu vivais avec tes parents pour aller vivre toute seule am na ci ñoo xamante ne du ñëpp mais am na ci ñoo xamante ne jàpp nañ ni génn télé rime avec liberté. moo xam video girl bi la moo xam journaliste bi la moo xam animatrice bi la déjà ñi lay xool dañuy jàpp ne yow vu yaa ngi génn télé nit ku libre nga war a doon donc boo gàttee xel tuuti génn ci ñaari clip ñett te boo seetee vidéo yi dañuy dañuy jëlaate en fait. c'est-à-dire euh, da gis benn année boo xamante ne sur 20 vidéos yu génn 12 yi wala quinze yi la même personne moo koy def am na fi ba tàyyi xew na fi ba tàyyi euh, quelquefois aussi am na ay maison de production yoo xamante ne wala ay maison yoo xamante ne dañu réaliser ay video dañuy am seen ay euh, seen ay nitu bopp c'est-à-dire soit dañuy liggéey ak ñi nga xamante ne ñoom ñooy ay agent ay agence de mannequinat parce que autant am na benn année boo xamante ne euh, daan naa ko gis ak art bi management Papis Niang euh, euh, jamono yooyu mu ngi liggéey ak Bamba Diop donc Bamba amoon na agence de mannequinat boo seetee Papis Niang vidéo yi mu def année boobu yëpp booy seet fii ñi ciy changé du ñu bëri euh, euh, bokkoon na ci li gënoon révélé Fama Thioune parce que année boobu dafa def vidéo clip yu bari bari bari ak ay publicité yu bari yoo xamante ne art bi management ñoom ñoo ko ñoom ñoo ko réaliser woon donc tout le temps loolu noonu dafay nekk loo xamante ne lu lu am la donc niveau de vie bi bokk na ci li tax nit ñi di leen indexé ñenn dañuy jaay seen bopp euh, euh, bien que euh, li ñuy wax métier boo dem am na ay brebis métier boo dem am na ñi nga xamante ne defuñu lu dul liggéey daan seen doole dem toog tout comme am na ñoo xamante ne bu wàccee ñi ngi li ñuy wax rek ñiy gàmmoog ñi raas dem duñu benn. duñu benn te yaakaar naa ne ci loolu di DJ Makho war na cee am xalaat bu mu ci joxe moom mi di yëngu ci wàllu musique. vidéo girl yi seen i nekkin man loolu euh, corom moo ma gën a jaaxal comme ni nga ko waxee feeñ télé benn yoon ñaar yoon bëgg changer sa mode de vie te da gis ku nekk ci télé des années. ni mu doon dundee noonu lay dundee bien vrai que ni dina am lu ci changé parce que euh, sa euh, port ni ngay ni ngay solo sa sa commentaire du nekk benn d'accord loolu on peut comprendre mais à quoi bon feeñtale benn yoon ñaar yoon bëgg jóge sa kër bi nga nekkoon wuti ji appartement est-ce que loolu tamit nekkul ci yarin bi parce que am na ñoo xamante mën nañ feeñtale cinquante ans dara du changer mais est-ce que hmm. bokk na ci euh, li tax tout le temps ñu leen di ñuy jàpp ne dañuy jaay seen bopp parce que euh, warul pour man warul changer mode de vie wu nit ki yow mi feeñ télé ak ki feeñul tele yéen a yem képp mhm. yéen a yem ci euh, bu dee ni euh, euh, ci wàllu yar la ñuy wax ak yooyu yàlla nag moo bind te yemalewul da nga gën fa nekk xale yàlla cëral la nga gën fa am tur di fa feeñ télé ku nekk ak li nga xamante ne loolu la la yàlla cërale mhm. mais aussi ci cër boobu yow dangay xam yàlla lu mu jublu ci lii parce que boo xoolee ni say moroom ñi ngi juddu comme yow ëppoo leen mérite liggéeyaloo réew mi lu war a tax ñu may la loolu donc loolu boo ko amee pour man euh, effet contraire la war a nekk da nga war a gën a xoolaat sa bopp xam si nga war a teg sa tànk xam yow yaay kenn donc bu fekkee ni yow boo ko defee ñaari yoon ñetti yoon déjà taar gi dina tax euh, boo demee parce que maa ngi koy wax ci gëstu bi nga xamante ne moom la ñu def euh, du ñu génn ak n'importe qui le plus souvent tey ci vidéo girl yi la ñuy waxtaan mais ñi fës ñëpp d'habitude duñu génn ak n'importe qui euh, benn coro sañul jóge fële rek ñëw na Zeyna même même bu fekkee ni am na ci gaa ñoo xamante ne ñu xam nit ki seen xel rek mooy toll foofu parce que dem nañu ba am image boobu ci ñi nga xamante ne dañu siiw wala ñu fës ci télé ak yu mel noonu euh, même góor ñi dem nañ ba boo waxee dañ naan dama ragal ñiy génn tele parce que duñ euh, pour ñoom. am na ci ñoo xamante ne jàpp nañ ni ñiy génn télé ñi ñu génnal daal ay extraterrestre la ñu war a nekk cest dire ay nit ñu manqué wul dara góor bu rafet am xaalis am oto sin peut-être que ñu sax nga xam ne ñi ngi am image boobu ci ñooñu ñi ngi juum parce que am na ñoo xamante ne fëkk yóbbuwu leen et puis alalu àdduna safu leen mais am na ci ñi nga xamante ne sañoo leen romb boîte wax ak ñoom parce que dinañ la xool bët boo xamante ne di nga xam ne ñii duma seen maas ñi ngi koy wax fan la ñuy daje ak ñooñu ci boîte de nuit yi la ci restaurant yi la ci hôtel yi la wala yaay gis am sa benn xarit mu ne la ah man bëgg naa la may kii dafa rafet dafa lii nga ne ko nu mu mel mu ne la d'ailleurs boo xoolee clip bu Samb moo ngi ci mu ko ne ah bii de doy na ma nga yónnee ko numéro téléphone on sait comment ça se passe parce que bi ñun bi ñu bëggee def dossier bi bëgguñu ci woon wax woon nañu ñi nga xamante ne njoxtu nañ ne bu ñu leen jegee am ay information yi war ba tax ñu mën a yokk ñun li nga xamante ne moom lañ ci xam donc ñu jox ñu ci pas mal d'informations comme pour dire que euh, vie yi buñ ko bëggee ak buñ ko bañee bëri na ci ñoo xamante ni seen vie changé na te liggéey bi mayu leen ko parce que liggéeyu vidéo girl quoi qu'on puisse dire ça paye pas mënoo génn ci vidéo sax ñu fay la mille c'est très rare ñi nga xamante ne ñi ngi koy am raar na parce que léegi euh, euh, dinañ ci euh, dinañ ci gis sax dara ci kanam parce que maa ngi ciy wax argabi parce que nee naa ko léegi réseaux sociaux yi dafa dem ba yi da ngay taper ci sa page Facebook je dois tourner une vidéo pour de cinquante filles faites balaa une de temps tu as cent cinquante filles mm-hmm. yu taxaw ñëpp postuler bëgg a génn télé donc loolu bokk na ci li nga tax euh, gis nga euh, euh, quand tu es demandeur ta valeur marchande dafay wàññeeku su fekkee yow dañu dem jëli la tu vaux plus mais su fekkee yow yaa dem sàkk pour dem sa valeur marchande dafay wàññeeku donc pour la plupart elles sont pas payées wala elles sont pas payées à leur juste valeur mm. bu ñu la waree fay cinquante mille su bindee yow nga postuler tu as vingt mille francs donc loolu lépp li li tax liggéeyu vidéo gër la yàqu ci dëkk bi amatu fi sax xaalis dinañ gën a xuus ci waxtaan bi mais euh, Gabi aussi quelquefois il partage pas cet avis là na c'est vrai que jafeetul noonu mais ni ñu jàppee ni que noonu la yombee yombeewul noonu aussi parce que ñoom bu ñu jëlee vidéo gër dañ leen di war a fay ak yooyu mhm. donc léegi sax il préfère artiste bi invité ay xaritam ay nitam nga xam ne bu ñu ñëwee dañ koy def gratuitement wala jox nañu exemple ku mel ni Carlou D par exemple su waree def vidéo clip am na benn fans club am bu tudd Mifadi dañuy gérer lépp di nga ko gis ak yeneen artistes par exemple waa Wali Family am na ñoo xam ne ils se portent volontaires pour def mhm. euh, balaa ñuy ñëwaat ci plateau bi on va juste suivre benn extrait boo xamante ni Gabi mi ngi ñëw un peu ci liggéeyu vidéo gar ñu dellu si waat one check one two one two one two one two ah, je comprends jamais compris ça les, les quoi. one two one two check one mic test. voilà ñuy xaarandi kon élément bi daal di euh, pare ngir ñu mën ci dellusiwaat ànd ceeg euh, waa régie euh, léegi mën nañu bàyyi kàddu gi ki nga xam ne moo di DJ Max joxe xalaatam ci mbir mi. voilà donc suma xalaat. damay jàpp ni vidéo gër dafay dafay dafay laal tout tout juste si mani mannequinat ah. mhm. euh, lu tax ma wax loolu mooy euh, wax nga ko sànq des fois ñoom dañuy am benn statut wala ñu bokk si benn agence bi nga xam dañ leen moo leen di gérer euh, mais seen train de vie day day day day changer day yokk day yokku lu tax day yokku parce dañuy bëgg am portable bu cher dañuy bëgg am beneen beneen melokaan. Mhm. pour pour pour pour être cher sax laay wax parce que ñoom tamit bëgg nañu su leen di fay cachet ñu fay leen lu méngoog euh, li ñu am. donc euh, je pense que ne artiste bi mënul investir également. vidéo am na solo trop ah, am na solo trop si si si li nga xam moom mooy produit artiste bi mais li muy investir pour am album bi dafay bare da euh, d' euh, abord. Mhm. li muy fay ki nga xam mooy def vidéo bi également tamit noonu bu fekkee dafa bëgg vidéo bu am solo su si bëggee boole di fay ay comme ni nga ko waxee ay ay ay ay ay vidéo gër day xaw a day day gën a day gën a jafe si moom. a mhm. à à la longue dootul am dootul am retour du am du am si am du si am du si boppam. Euh, mooy ni nga wax noonu soit day am fans club wala benn xale bu nekk ci koñ bi bu rafet ñu jël ko euh, exposé ko wax ko après ñu comme tournage la am na ay coupé collé donc lu bare mën na ko def parce que même bu fekkee mosul def théâtre même bu fekkee mosul def métier boobu je pense que nii lu bare ci artistes yi noonu lañ koy defee. Mhm. parce que pour fay déjà clip bi fay vidéo girl def naa day xaw a jafe su ñoom. Euh, ndax dafay nu dem ba nuru ki nga xam dafay jaay boppam. tamit daf si am parce que moom mooy li loolu ki tey jii euh, ñi ngay génnal doo génn avec n'importe qui parce que tey boo bëggee portable deux cent cinquante mille mun maxtaar mënul la ko jox benn euh, Samba benn Fall Ndiaga mënul la ko jox seet da ngay seeti tey ki nga xam tey ji mën na la ko jëndal du coup nga tey bu fekkee bëgg nga appartement trois cent mille jógee par banlieue dem dëkk feneen donc tamit am na ñuy xam ñoo la ko mën defal donc kon loolu lay nuru même bu fekkee ni yow demoo taxaw amoo carte yooyu mais c'est déguisé parce que ki lay defal loolu tamit en retour am na aussi tamit li tax muy def loolu kon euh, foofu moom foofu la amee nuance foofu lay am problème euh, je pense que si affaire euh, vidéo girl foofu la jigéen ñu war a def attention et puis surtout man fi may gën a fi may fi may fi may dugg mooy si col gi. Mhm. waaw si melokaan bi col gi parce que des fois dañuy utiliser jigéen ñi également simbi leen pratiquement pratiquement si vidéo yi. Mhm. et que xaalis yaru ko et lu mat bàyyi xel la. Mhm. dañ ci dul sax am dërëm. Mm-hmm. dërëm duñ ko ci am. ñoom feeñ bi moo leen moo leen importance. ñoon nañu feeñ rek xam nga bañ sa moroom nangoo neex. Mm-hmm. yow li kii di bañ. Mm-hmm. man li may bañ yow mën nga ko nangu. wala yow li ngay bañ mën ma nangu ko. dara bu la yàq dara. jigéen ci boppam moo war a am personnalité. am na yu bari yoo xamante ni si waruñu la ci dugal. ok amul problème war ngaa dem euh, vidéo war nañ la jël clip fay nañ la xaalis nga dem mais nag na nga xam na ngay def xam mhm. la parce que liggéey bu ci nekk ñi ci yëngutam tam ñoo ko ñoo ko war a jox gëdd bi mu bi mu war a am mais boo ko joxul gëdd yow duñ la jox sax sa gëdd yow mhm. te jigéen ci boppam wurusu ngalam la mhm. mais dëgg la jigéen wurusu ngalam la waaw mais dooguma la xam nga foofu tam bu ñu nee vidéo girl euh, jàpp naa ni moom li muy nangu ki nga xam ne dafa nekk si koñ bi du ko nangu tey jii moom parce que moom métier la ko def tey sol mini du dara si moom am na ki nga xam rafet na mi ngi si koñ bi mais ku yiw la boo ko bëggee jël ni soloo ko mini day bañ donc kon foofu tam day am nuance quoi day am moo tax ñoom tamit des fois artistes yi di dem si ñooñu si vidéo gër mu jaral la ñu fay ñu mën a am li ñu bëgg waaw si loolu pour ñu am li ñu bëgg d'accord décolleté wala dox benn dox benn bi am benn dégagement comme ni ñu koy bëggee mhm. donc loolu euh, ñaar la quoi ñaar la parce que parent bi nga xamante ni moom la doomam di dem figuré ji ci clip am na ci part de responsabilité mhm. parce que man comme je le dis tout le temps ku génn ku nekk sa ambassadeur famille nga mhm. euh, soo waxee euh, donte nit ñi xamuñu la mais ci sa wax nit ñi dinañ mën a un peu xam ban famille nga bokk wala mm. ban éducation nga am mm. tu comprends un peu responsabilité ñi réaliser les vidéos mi ngi ci responsabilité artistique ngi ci parce que bu fekkee ni yow sa vidéo bi da nga ciy dépenser deux millions trois millions pour mu génn après euh, euh, nga dem sur le net ku nekk di laxas xas waa vidéo bi lii vidéo bi lii c'est vulgaire c'est lii c'est laid c'est vrai taar rek pour man doy na mm. tu n'as pas besoin exposé wu sa yaram sa yaram mhm. mais loolu aussi quelquefois xëj na vidéo girl yi ñoom loolu lañ leen di laaj habillez-vous sexy soyez bel lu ngeen rafet doyul lu ngeen sexy doyul noonu la donc bu fekkee ni que wax nañ la loolu man coro mu ñàkk kilifa mi ma ne ah garaawul lu ma def garaawul Zeyna mi nga xam dafa am kilifa da koy bañ donc ci li gën a yàq métier bi parce que lu ma sàmba bañ tey ma dem ba nangu ko suba nga war a fay Zeyna cinq cent mille col bu gàtt mu ne la duma ko def coro ne man nangu naa cent cinquante mille ak col bu gàtt ça arrive donc bokk na ci li yàq milieu bi Sidi est-ce que yéen a ngi tenir compte ci euh, euh, mbir yooyu ci lu ci lu ci ëpp waaw bon en fait euh, man en général bu may bu ma génnee production mhm. di def clip damay choisir déjà réalisateur bi jox ko morceau bi nga xam moom laa bëgg mu clip ko donc mu defal ma scénario voilà li ma lii ak lii temps nga may fay ma fay ko moom mooy réaliser. Mhm. Euh, c' est bien vrai que man maay valider parce que am na ci loo xam ne ma mu mu méngoog samay image damay bëgg toujours kuy seetaan samay clip rek vraiment di ci di ci gis boppam. Mhm. waaw bañ ci gis lenn lu vulgaire wala lenn loo xam ne vraiment. Euh, parce que Sénégal lañ dëkk voilà te image dafa jar a sàmm. Mhm. le restant nag bon je pense que Thioro moom a gën information yi pour euh, pour gën a dugg ci ay détails mhm. mais en tout cas daal li ma xam ma xam mooy samay vidéo danaa ko contrôler danaa ko finaliser mais décision yu am importance yi réalisateur moom moo koy jël d'accord voilà Thioro voilà Zeyna euh, li wax ni dañuy lay fay lépp vidéo gara lépp ci la bokk le producteur se charge de tout le réalisateur de la vidéo il charge de tout tout comme am na ñoo xamante ni jamono dafa metti euh, am mun di fay réalisateur pare demaat utiwaat ay vidéo ga mu war jàllaat ci seen ndodd ñoom ñu fay ko quoi qu'on puisse dire euh, dafay metti ci artistes yi mm-hmm. ni ma ko waxee sànq bi mi ngi koy expliqué malheureusement on na pu on n'a pas pu suivre euh, euh, extrait boobu nga xamante ne moom la ñu def ak moom mm-hmm. am na ci ñoo xamante ne léegi bi bi ay fans club judo ba léegi tax na sax yu bëri commencé di wàññeeku mm-hmm. parce que le plus souvent am na ci ñoo xamante ne li artiste bi di sol am na ay fan club yoo xamante ne c'est-à-dire nekk ñoom ak euh, artiste bi nekkatuñu ay fan club nit ak ay frère am na ak ay sœur am mhm. dañuy tenir compte ci li artiste bi di sol li may wax artistes yi xam nañ ko ñi réaliser vidéo yi xam nañ ko je pense le contrôle de Sidi Samb xët na xam na ci dara dañuy dem ba dañuy contrôler li mu war a sol maquillage bi nga ko war a defal ci vidéo bi ñu tenir à ce mu bañ a ëpp li mu war sol li mu war lépp lu war ci tournage bi mhm. dañu ciy jàpp jàpp ci ba bu vidéo bi génnee kenn du am lenn loo ci loo ci loo ci loo ci mën a xalaat wala yi participer voilà di solal artistes di solal ñi xam ñoom ñooy danseurs yi parce que mhm. euh, tailleur yi xam dañuy dañuy dañuy bëgg seen produit fes donc dañ si jàpp mhm. mais des fois aussi tam ñoom tam duñu bëgg Euh, mu am ay couac dañuy bëgg mu baax dañuy bëgg également ku seetaan clip bi ñëw si ñoom am am loo loo loo fa jëlee mm-hmm. je pense que loolu tamit sensibilisation bu baax la tailleurs tamit di si di si tenir compte. parce que des fois sol prêt à lu ñu dem par exemple jëlee ko extérieur ak sol des fois li si ëpp si clip bi boo xoolee li si ëpp surtout fecckat yi li si ëpp dañuy dañuy dañuy sol li nga xam ne vraiment c'est local. Euh, tailleur yi ñoo koy def artistes yi en général tamit ça selon le morceau dañuy xool naka lañ mën a sol ak tailleur même bu fekkee dañ koy ñaw ñaw tubaab yëre tubaab mais suñu tailleur ñoo koy def ñu xool bu baax aussi tamit. tamit euh, léeg tamit euh, clip bi yi foofu ngay. mettre en valeur artiste bi wala vidéo bi wala morso bi parce que tam vidéo bi euh, morceau bi moo ko tax a jóg ah. mhm. boo xoolee son bee ko tax a jóg moo tax moom nañu ñuy mettre en valeur donc daf lu koy lu koy gàkkal war nañ ko éviter li nga xam te ne boobu ku seetaan ni zappé ma ko wala ah nu ma kii daal neexatuma te pourtant neexoon na ko de non parce que mhm. Sidi Samb la doomu Daaru Mbay la mais clip bi rek mooy nit ki par exemple bëgg dégg la bëgg la gis rek xeeb la. Mhm. yooyu dañ ko lu lu jar a moytu la. d'accord Thioro lan ngay euh, jeexale. voilà di euh, euh, di remercier ñëpp remercier ñëpp ñi nga xamante ni ñoo jàpp ci liggéey bi parce que damay sonal gars yi am na confrère sonal woote fii woote fee donc ñoom ñëpp dama leen di remercier depuis petit déj commencé ba tey jóguñu ci di jàpp. ci sama liggéey bu ma limee damay jub mais ñoom ñëpp xam nañu su ma waxee Tange bu ma waxee Chon wax naa ñoom ñëpp donc maa ngi leen di remercier ñoom ñëpp ñi nga xamante ni ñu ngi jàpp bu baax pour euh, sama liggéey euh, gën a gën a gën a gën a yomb. Mhm. di remercier également waa Lili Coiffure euh, nuyu bu baax waa complexe Sofia Batuli Mafi Chéri Ndiogo Mbaye Euh, Omaro ñooñu sama sama groupe lañ dama laa bàyyi xam groupe benn <laughs> maa ngi leen di ñoom ñëpp di def un coucou fatiment Fatima Diack ak Awa Maron ma cousine mboom bàyyi xam nga di nga dellusiwaat. Mm. li ñuy eh, wax nuyul Ousseynou Kassé. <laughs> <laughs> Ousseynou Kassé ak Assane Kassé aussi. ak Assane bëgg trop. maa ko gën a bëgg koo bëgg bëgg na la maa ko gën a bëgg maa ngi bu baax di ko ziar moom ak famille wam. voilà jaajëfal ko moom Thioro Mbacke Ndiaye léegi léegi ñu jàll ci leneen ànd ak ki nga xamante ne moo di Rama docteur Dieg ji ci rubrique bu ñu jagleel bu ma ko bocc. Euh, comme euh, ni ma leen ko waxee woon ci sommaire bi Rama tey lu muy waxtaane xamante ne euh, ñoo di xale yu jigéen ñi ak paa yi comme nuñ ko xamee lan moo waral xale yu jigéen ñi léegi di taamu sëy ak paa yi wala sax ñuy ànd ak ñoom lu ni mel mooy tey nag thème bi nga xam ne moom la Rama fas yéene waxtaane muy lu am solo Rama. lu mhm. ah, neex. <laughs> Mhm. ndax. dañu ko dama ko seetlu dama seetlu xale yu jigéen ñi léegi bëgguñu génn nag ku amul jabar rawatina nag paa yi jeunes yi nag ñoo ngi koy kaas <laughs> looloo tax tey jii nag ma def doxantu nañu daal def ci def ci tubaar fa lu baax léegi dañuy ànd ak Cheikh Diop mu tegal ñu suñu élément ba ñu seetaan ko pare bu ñu paree dellu si ci plateau bi ci Ah, xam nga kenn du gis dëgg di seeti ndax lu leer ak lu leerul parce que ki am jabar moom xam nañ ni góor dëgg la benn ndax am na jabar ñaareel ba na mu yoree jabaram kenn dootu ko laam-laame tax ah, na mu yoree jabaram doy na la ba tax nga dugg ci góor jigéen joo gis mu dem di ah, génn borom jab borom jëkkër rek dafay ñëwee jabaru kooku. xam nga nag góor bu tolloo fu moo xam ne daay neex a bëgg ba pare ñu war koo mën a bëgg buñ ko bëggee rek. problème loolu mooy seen bëgg-bëgg mais man moom loolu bëgguma ko franchement comme man célibataire laa daal naa xool sama morom célibataire rek xamante ne dañ koy def ah xëy na ñooñu pour bëgg a sëy moo leen siy dugal xëy na am na ñoo xamante ne pour mbaraan moo leen siy dugal ku nekk rek ak li la si dugal mais man daal choisiruma loolu waaw comme li ñu wax rek comme ñëpp moom ku nekk sa bëgg-bëgg ah man naa préféré célibataire comme man ñi am jabax ñoo xam nan la ñuy téye jigéen loolu tax nag en général ñuy def loolu. non non non non pourtant pas. xamante ne duñu am dañuy am jabar xam nga nit yor jabar ba pare rek moo xam nan la ñuy téye jigéen te en général léegi xale góor yi euh, si ñi ma ko war a wax dañuy tëdd seen kër di nelaw bëgg lu yomb yaay may ma meew yaay may ma kafe te ñu am jabar xam nga euh, la moindre des choses dinañ xëy dem uti dara xam nga ñooñu ñu joxee seen jabax te ñu te en général jigéen. du génn ak ku mu ñeewul jabaxam man de xale buy génn ak ku dul moroomam digaluma ko ko